salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di euh, nuyu ñoo ngi en euh, direct ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Abdou Khadre nekk journaliste ñu bëgg ko laaj rek ci ñëwub Macky Sall fi nga xamante ni mooy dëkk bu sell bi sand bi ñu jëm mu am ay information yu mu ci leeral Abdou Khadre ñu ngi lay ziar bu baax. waaw ñoo ngi lay delloo ziar Mor Fall di la nuyu di nuyu suñu mbokk internautes yi comme noonu nga ko ko waxee dafa am loo xamante ni tey lu garaaw loo xam ne dafa nar a xew ci dikku Macky Sall gi ci Touba. Mm-hmm. Euh, fan yi nga xam ne moom la ñu génn sëriñ bi nag euh, def na déclaration wax na ne lépp loo xam ne xeetoon na ak wàllum xumbute euh, bu ko kenn amal ci Touba. ñu gis na nag ñi nga xam ne ñooy waa Bennoo Bokk Yaakaar mouvance présidentielle bi dafa am ñenn si ñoom ci ay leader fii ci Touba commencé nañ ñii di defar ay pancarte ak ay t-shirt ngir teertu Macky Sall te loolu dañu koy tere te nag comme opposition bi ñoom toog nañu. Euh, waa PASTEF ñoom génne nañ communiqué nee mhm. lépp loo xamante ni jëm na ci xeetu saboté njiitu réew mi ñoom seen xel mosu see dem. Mhm. dégagé nañ ci seen responsabilité kon nag ñi nga xam ne ñooy jàppale président Macky Sall bu dee ñoom ñoo bëgg a fëq ndigal loolu dafay nekk loo xam ne lu doy waar la. Mhm. te nag euh, jàppante tamit mën na see am bu boobaa. Euh, te bu boobaa tamit ñi nga xam ne ñooy jàppale Macky Sall Macky la ñuy yàqal. waaw njiitu réew mi te bu boobaa journalistes yi dootuñu waxati waxi immigration dootuñu waxati waxi hôpital. Mhm. mais waxu euh, jàppante boobu am moom la ñuy wax foofu. maanaam ñoom waa ñoom waa mouvance présidentielle ñoo nar a saboté dikku Macky Sall ci Touba. Hmm, mu mel ne li nga xamante ne moom mooy communiqué boobu waa Pastef génn woon nee nañ euh, ñi nga xamante ñoom ñooy waa APR ñoom ñoo bëgg def lool nga xamante ne moom mooy euh, accueil boobu bu amee ja amee jafe-jafe bi am ñu jiñ ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa opposition bi ndax ndax loolu da day nekk loo xamante ne lu lu lii li koy dëggal. waa xam nga tey ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoom amaana ñoom ñoo am seen information kane dafa am ay ndawi APR yu frustré yoo xam ne ñoom mm. dañoo bëgg a sabooti dikku président Macky Sall. Mm. Euh, buñ si noppee tuumaal leen ko. Euh, képp koo xam ne daal yaa ngi sabooti dikku président Macky Sall ak foo man di bokk jàppal ne yaa ngi violé yaa ngi xëtt ndigalul xalif général de murit mm. waaye nag euh, comme nag Pastef ñoom dégagé nañ seen responsabilité loolu mooy ñoom li leen war. waaye nag su dee tey par exemple tey ñi nga xam ne ñoo ànd ak njiitu réew mi euh, ñoom bu dee ñoom ñoo bëgg def ay manifestation bëgg euh, defar ay t-shirt bëgg defar ay pancarte bëgg a teertu te loolu lépp sëriñ bi di ko tere jàpp naa ne ñoom dañuy yàqal euh, président Macky Sall te bu boobaa leneen ak leneen mën na cee am. Euh, loolu la ñu waxoon ne danañ ko alerte ndax jot nañu ay xibaar ne bëri nay leader politique xam ne ñoo ngi defarlu ay t ñii di defarlu ay pancarte ngir teertu bëgg a def xumbaay bëgg a def rumbaay te loolu sëriñ bi daf koy teree. Mhm. li ñu war a def daal mooy ñëpp ànd akub dal bàyyi njiitu réew mi mu ñëw. Euh, def ziaram def inauguration hôpital bi su ko defee euh, jàmm jàmm na ñooy. Mhm. ndax ne njiitu réew mi euh, ganu xalif général des Mourides la comme nag ganu xalif général des Mourides la dañ ko war a bàyyi siyaar boo xam ne bu ànd ak dal la mu dem inauguré hôpital bi waaye nag bu dee ñi ànd ak njiitu réew mi ñoom ñoo bëgg a def xumbaay ñoo bëgg nag salfaañe jalgati yàq li nga xamante ne bëgg a indi jafe-jafe bëgg a li nga xam ne mooy ndiglu xalif bi loolu nag dafay nekk loo xam ne lu dangereux la am na nag kenn koo xam ne. ci mouvance présidentielle la bokk ku ci mel ni Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma. Hmm. Euh, ministre conseiller moom moo communication màggalu Touba gi mooy coordonnateur euh, benn Bokk Yaakaar ci euh, ci Touba moom def na benn sortie nee na nag moom dégagé na ay responsabilités ci bépp xumbaay bu mouvance présidentielle bi def. moom hmm. dégagé na si ay responsabilités am ak parti bi. Hmm. nee na ku manifester yaa def sa manifester bopp. waaye du loo xamante ni tey am nga ci ndigal. Mhm. du ndigalul njiitu réew mi du ndigalul parti bi. Mhm. xam nga ko dégagé na ay responsabilité mhm. waa Pastef ñoom tim dégagé nañ seen responsabilité ci bépp sabotage bu am. léegi nag yeneen leader yi nga xam ne nag ñoo bëgg nag def ay manifestation def leneen ak leneen ëllëg lu ci mën di xew nañ assumer seen responsabilité rek. voilà jërëjëf. d' accord jërëjëf ñu lay ziar bu baax di la jaajëfal.